ar yoon quoi ñu ñëwaat ci ci der bi Mamady Ndiaye jamono yooyu ngay wax Mamady Ndiaye ak waa Joal yi ñoom Dimle ñoom Gorfit ñoom l'an 2000 ñoom yi nu mu doon def. ah bëre rek di leen di fekk di leen di fekk Bayal dañ doon daanante rek. waaw ah. dañ doon daanante. kan moo si gënoon si gars yi. waaw waa Joal yi. Joal Joal Joal. Hmm. naqaree est-ce que du Edouard. Dimle waaw yaakaar la de. Ah. waaw. Dimle ñaata yoon ngeen bëri. mënu ma ko lim. Hmm. wallaay mënu ma ko lim. ndax de bëri nañ ñu bëri. Hmm. waaw. non bàyyil noonu rek loolu loolu loolu loolu. bàyyi noonu damay topp dama lay topp ba nga sësi mi. non xaw ma sax dañ doon daanante rek. ñaar rek léegi ay géen ngeen wax na ma ko ne ma ma di sama waay la dafa maa respecté ñu koy nuyu de passage moom ma di Ndiaye Arona Diène góor fit suñuy njaatige la ñoo ñu dalal sa wàll. sama grand sama sama grand lañ. ñoom Poli ñoom Edouard Dimle. ñoom Arona Diène. Hmm. samay grand yu baax lañ. mais léegi yaa Dimle ban combat nga ñu mun a nettali combat bi gën a tar seen combat yi ngeen bu gën a métti. maa combat maa ak Dimle daanul yomb de dañ doon bëre ba kontaan. mais bu si gën a tar boo xam ne moom bëre ngeen lu rëy. ma xool est-ce que du chef de l'État ba. am na chef de l'État bu amoon fii. drapeau chef de l'État waaw. maa moom ñoo defoon demi-finale quoi. mais làmb bi. Euh, dañ maa daanoon sax maa daanoon euh, après arbitre bi daa yëkkati woon. loxo dimle quoi xam nga Edouard rek xam nga dafa bari bagage <laughs> ari bi yëkkati loxoom quoi après gars yi tas làmb ji hmm. ndax gis nañ ne man maa daan hmm. mais keneen la ñu jox victoire hmm. après si la gars yi xool xool boobu nag euh, làmb làmb mel quoi waaw amoon na caméra mais barilu woon comme comme léegi nii quoi après si lañu ñu xool euh, caméra yi xool gis ne man maa man maa daan quoi après si lañ ma jox verdict ma defoon final ma ak euh, laay ndangaan laay daan ma final. ci poids lourd bi waaw. mais mhm. la woon. biir Joal tamit yan lamb nga fa jël lamb boo xam ne dem nga fekk fa champion yi dëgg nga xam ne lamb ji diis na trop. Lamine mm. lamb Joal mosul yomb. léegi la lay am ay ay ay ay ay ay yenn nii rek mais lambu sowal da doon diis du du raw gaadu du tànk du poids lourd day diis gan ndax ñi fi nekk rek dafa bari champion. Ndiaye nag yan lamb nga jël foofu noonu ak ko daan final Joal. Joal bari na de hmm. Joal li ma fi jël ay drapeau bari na de hmm. mun naa wax ne bu ma juumul hmm. yaakaar naa juumuma ngot ngot rek la yaakaar ne. mun na ma ëpp ay drapeau ci biir Joal mm-hmm. waaw. ngot bu faajut ngot bu ngot nee na bayal fii a jega o <laughs> ndigi la layu koy. am na ay temps. bu am Joal faajut. Mm-hmm. ngot bu jëlul tànk yi. Mm-hmm. mooy jël poids yi. bi mu demee ba bàyyi tànk. poids bu amee. ngot mooy moo moo koy jël. du benn année du ñaari année. tegle ko tegle ko waaw. te bu muy bëre tànk boobu maa ngi jàngee maa ngi jàngee CM2 suñu suñu prof sax suñu maître da ko doon wax ndax làmb bu am boo laajee kan moo ko jël foog nga dégg ngot mooy jël léger yi mu jël tànk yi te loolu ci raw gaadu la ko commencé quoi waaw. mais pôles yi pôles yi tamit bokkoon na si gars yi gënoon naxaree bëreel. te dafa misikoon trop. waaw pôles yi laa pool yi waaw bëri nañ benn yoon. Hmm. waaw ku man la ma yoon dam de. waaw yaa pool <laughs> Aruna sama grand la. waaw waaw nañ waaw nañ. Hmm. bëri yoon. ñoom galas ak nañ. Hmm. waaw. moo laaj la benn loolu moom. l'an deux mille euh, rakku Modou Fall la. xam nga am na mbër buy wax ne tegle na teg daan na ma daan Ablaye Ndiaye ci benn bés <coughs> man Mamadi Fadiouth laa dëkk Ablaye dëkk Joal mais man am na ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ñetti nit ci mm. benn jour ci benn làmb laa leen daan. loolu du ma ko ndamoo sax mm. yala ko dogaloon rek. Mm. jeex na jeex na. waaye léegi rek léegi rek day ndamoo ne daan naa daan naa Ablaye daan naa Mamadi ci benn bés te jour boobu daanu ma de. Mm. arbitre yee ma daan. Mm. ndax dama ko yéenu mu rëcc si. Mm. wax baaxul baax na. loolu si ñëw yegg see guñ boobu biri la étape yi nañ étape par étape parce que lu yàgg yi la ñuy natal yu pare soog a ñëw ci Mamadi trois génération la dañu ñëw génération par génération bul yàq waxtaan. xam nga tamit xam nga tamit am na lu bëri lu bëri loo xam ne dama koy fàtte ci bëre quoi mm-hmm. ñi ñi nga xam ne ñoo ñoo doon ànd ak man. ñoo la ko mun a. ñoo a nettali. waaw mhm. mais lu bëri dama koy fàtte quoi. mais moo di Ndiaye question yi da nga koy daw biir sax kon xanaa ñooñu dañu laa jege sa mbokk yi la say grand la ñu dugg ñu dugg Palmarin Palmarin ñan nga fa nekkal génération bi nga yéegee ñu ngi fa fekk. Palmarin am naa fa presque deux trois générations mhm. waaw mhm. ndax génération bu mag bi mun naa wax ne ñoom Papo Ngatam. ñoom usine doole Babacar mhm. ñoom càmpu mhm. waaw ñooñu ñoo ñooñu bëri naa ak ñoom. Mhm. Youssou Ndour. Youssou Ndour waaw. mooy première génération bi rek. ñooñu dama leen fekk si ko quoi. ñooñu ak samay mag lañu woon. <coughs> ñoom foo Mbis Fodé Mbisine. waaw. loolu yëpp ci aar bi la bàyyi ñu nga taxaw ko. ñoom Fodé. ñoo ñoom ñooy deuxième bi. troisième bi xam naa moom ñoom mooy. ñoom Samba Cissé ñoom Samba Cissé ñoom Bukar. ñoom Bukar waaw. waaw muy trois génération foofu ko léegi ñu ñëw ci génération bu njëkk bi Youssou Ndour. Kalmundo Youssou Ndour waaw. bëri ngeen bëri nañ ñaari yoon. Hmm. waaw. mu daan ma ñaari yoon. ñaari yëpp waaw. Youssou nag dafa mel ni dafa naqare woon bëri. waaw Youssou nag jamono bu may bu may may daan. jamono bi mu may daan boobu booy laa ko waa mais dama gisoon ne Youssou fu mu fekkoon suñu grand yi da leen doon daan quoi affaire bi métti ma boobu nag Youssou moo ma doole fuuf moo ma mag moo ma ëpp doole mais bu ma ko gisoon ci bëre damay bugg a damay bugg a bu pour dem bëre ak moom. ndax ni mu doon def grand waaw. nga bugg yi benn bi may daan fii la woon. lamb Saint-François fii Fajut boobu sax bëre si bëre bëre siwu woon am sam benn gaayen bu tase woon ak moom ma ñëw ma ne ko bàyyil ma dem. waaw boobu dama ko bugg a daan quoi. comme nu muy daan suñu grand yi. Mhm. ma bugg ko daan quoi. parce da doon daan grand yi waaw mais dañ doon daanante daal daan na ngot. ngot xaw ma ndax mos na ko daan mais daan na papis papis daan na ko daan na Jean Paul Jean Paul daan na ko mhm. waaw man nag jamono boobu boobu booy laa boobu sax jëlaguma drapeau mais bu ma gisoon Youssouf bëre si mhm. damay bugg a ngemb pour bëre pour taseeg moom parce que dama doon gis nu mu doon bëre ak nit ñi damay gis ne kii pour ma daan ko c'est comme bonjour quoi bon premier jour bi Saint-François fii la woon Euh, sam benn sam benn grand moo moo tase woon ak moom mhm. ma ñëw ne ko bàyyil ma dem bàyyil ma dem daan ko <laughs> léegi ma àbb ser ngemb ñëw tase Youssou ñu bëre mu daan ma deuxième bi mhm. fekk na man commencé naa bëre euh, ba commencé di jël ay ay ay drapeau daka Dakar terrain gaar gi la woon ñu bëre bëre bu metti mhm. waaw mu daan mu daan ma mais bëre nañ bëre bu neex bëre bu neex maa ak moom terrain gaal gi après mu daan ma. Pape Ngatam mi nga xamoon ne da ngeen bokkoon bëre jël tànk da ngeen bokk bëre laay wax. taje ngeen Pape waaw dase nañ waaw daan na ma daan naa ko hmm. waaw. ñoom usine doole. usine doole hmm. daan na ma daan naa ko. jama ko yàlla naa ko. na ma daan naa ko. mais del wax nag fi nga ko daan ak ñaata nga ko daan. bëre ja jama maak maak moom ñaari yoon lañ bëre. Hmm. Joal fi la ma daanoon benn final. daan naa ko demi final Dakar. Mhm. waaw. Paabu Ngatam nag. Paabu Ngatam bëri nañ lu mot quatre cinq fois. Mhm. waaw daan na ma daan naa ko. Mhm. waaw. mais instant boobu tamit Mamady Ndiaye yaakaar naa yemul woon diggante Joal ak fii nii daan na dugg ci ci dëkk ndox yi ci île ko waxee. man aw ma woon gisoo fi ma jëli jee sama premier drapeau. waaw Néemanding booy dem gaal bi. il yi ñan bon il nag bëri naa ba nekk mag mm. soog fa jël làmb mais mënoon naa wax ne sama premier drapeau ñoojoor mm-hmm. la la waroon nekk mm-hmm. waaw. ñoojoor euh, dem naa foofu bëre ji foofu taseeg seen benn mbër final Asa. Mm. Asa Asa. waaw sa bu ñu tasee final dañoo bëre bëre bëre bëre eh, def ay chutes yu bëri mun naa wax chutes yi mot nañ ay set wala huit mais ci benn action la quoi boobu dama ko korose di ko mboot dama koy mboot ba mu teg dënd bi teg biir bi mais bu ma buggee bàyyi rek arbitre bi damay gis ne arbitre bi day day wax ne ñu continuer ma continuer waat action di ko def di ko def ba ay lu mot ay sept huit reprise dernière bi dama ko mboot ba ba biir bi biir bi nekk si suuf léegi ma rocceeku daw moom mu daw mhm. léegi arbitre bi mhm. moo dem ci micro bi la joxee verdict ne ndeero paaj taxe fo ñoojoraxe mhm. o ñoojoraxe arbitre fe a coɗɗo a arbitre fe a ñoojoraxe coɗɗo a saaw ñun ñëpp ñun ñëpp ñi ñi nekk waa Fajut ñuy jooy waaw waaw naaga tig na ko naaga sax tukkuwaa. près de ba nekk poids yu dëkk foofu ñoo joor. bi ma demee euh, benn yoon laa bëree euh, ñoo joor. Mhm. daaw daawaati jéeg. Mhm. waaw dafa fekk sax ma gaañu sama baaraam bi quoi. ma dem bëre foofu Ibzo moo ma daan demi final. Ibzo Seval Ibzo Seval waaw. loolu yàggul daan na ma jëli bu leer. Mhm. waaw bu dëñagul si sama mémoire bi. waaw. <laughs> ndax xam nga man man man mom nit boma ma rek ah damay bugg a fayu quoi. léegi Mamadou ndjay def na lu ne Dakar ban lamb la jëk beure Dakar. lamb bu ma jëk beure Dakar euh, Adrien Senghor la bobu licence amul mhm. ma andonak ak sama boy ma len di nuyo Pacha ñom galo ñom Chinu ñom Tufi xam nga mhm. ñoo ñoo dëkkoon Grand yof quoi mhm. nek sama boy Si ñu ñëwee 15 quinze commencé di que expliquer que am foofu Grand Yoff xam nga di ñu nettali ma Grand Yoff si ça si. <laughs> si Dakar. Hmm. Euh, Bentali. Hmm. mais jour bi euh, Dakar usine Bentali. Hmm. Grand Grand mais bëgg naa dem Grand Yoff pour gis booy ndax ñu mun maa woon fi gars yi di bëree ko waaw après lendemain ba laa fexe ba dem foofu Grand Yoff ma lambu amul ma ñëw si atelier booy booy boobu booy ñu ngi jàng métier foofu ma ñëw yendu foofu si atelier bi ñu ne ma lamb bi dina am lamb dina am ci weekend bi samedi ak dimanche lay am si laa ñëw nag samedi bi ma ñëw teseeg buubu joom buubu joom laa njëkk a taseel ci arène ba ñu bëre bëre bu metti mun naa wax ne sax daanuma arbitre bi jox ko jëli boobu buubu day def may jël sama tànk bi teg ko si bopp bi daw man daw man ba ci biir nit ñi ñu dellu si waat noonu lañ ko jàppee di ko jàppee ko noonu ba euh, fi ko arbitre di joxee jëli daf ma war ndomb mënumaa yóbbu fenn yàgg foofu après benn gars na nag moo ñëw rek téye ko xëcc ko après arbitre bi noonu la ko joxee jël encore yëkkati loxoom bi ne moo ma daan. léegi ban lamb nga njëkk a jël Dakar. lamb bi nga jël njëkk a jël Dakar Ndefleng la woon. drapeau Ndefleng drapeau Ndefleng waaw. moom la ñëpp doon xaar. waaw ñu ciy lancé appel ngir yàlla waa lamb ji indiwaat leen ko loolu cosaan la mais léegi déggatuñ ko. te koo wax ancien gloire yi koo wax ñu ne Ndefleng lambu mom. waaw lamb boobu moom. waaw lamb moom moom. yaakaar naa drapeau chef de l'État rek moo ko gënoon rëy drapeau président de la république moo ko gënoon rëy ci Sénégal fii Ndefleng mhm. waaw. boo jëloon boo jëloon drapeau drapeau boobu rek da da ngay doyal. waaw ndax da xam ne drapeau bu rëy nga. xam ne dëgg nga daal. waaw waaw waaw. boobu nag bi ma bi koy jël fekk tamit euh, malal laa daanoon final malal Ndiaye. jamono boobu malal dafa sonal daf ñu sonal ñun séeréer waaw. malal kay gars yi ku duggoon Dakar mu defaral la. waaw ndax malal jamono boobu dafa taxawoon ay année yooyu. Mhm. séeréer yëpp la daanoon. Mhm. séeréer yëpp la daanoon. Mhm. ba ci làmb boobu. ma ñëw di daan fii muy daan fii. may ñëw di daan fii muy daan fee. ba ñu tase final. ñu bëre bëre bu neex. après man ma daan ko. noo ko daan. waaw dama ko prison. moo jàpp mbagg yi noonu. daf ma waroon ndomb. ma ma ma def prise boobu hmm. ko waaw waaw bérek ko waaw. mais avant final bi hmm. boobu bëri naa ak hôtel Dior. bëri naa ak Mol 1. Fara Audi. Ngambi. Hmm. am naa daal quatre com quatre combats cinq combats. dem final ma jël ko si Malang. bi nga jëlee drapeau chef drapeau Ndefleng boobu nan la loolu defoon. si jour boobu laa jël làmb ba pare tiit <laughs> tiit hmm. ndax jël naa ko mais hmm. euh, dama jël drapeau bi ba ñibbisi hmm. ma jóge stade ñibbisi ma àgg si suñu kër bi may wàcc euh, oto bi. waa benn tali waa Grand Dakar mhm. ñaari tali mhm. ñëpp ñoo maabo si suñu kër jour boobu tuut suñu suñu suñu bi tuuti mu maabo lay wax ni wallaay wallaay azim ñëpp ñëpp daw si mhm. xool si ma jour boobu dama jël làmb ba pare tiit ndax mbooloo bi ma gis ñi ma fuul bi fuul bi nu ñu def see ñu ñu seen kër quoi waaw waaw. affaire yu marqué waaw ñëpp yàgg yéeg si si kaw. nga defoon jàlloore que ñi nga lim fii ay champion la. waaw mhm. waaw jour boobu dama bëre nag. Mhm. dama bëre trop. waaw yaakaar naa làmb bi maa fa gënoon tuuti. Mhm. waaye maa ko neexaloon. waaw. am na sa benn combat bu mooy gis fan yi fan yee ci ci whatsapp bi muy muy muy jàll sa benn combat ak Saliou Saliou Pouye Zal suñu tukkee daal loolu fan la woon. waaw Grand Yoff la woon Adrien Senghor. mais waaw final bu neex bu yàgg. Mhm. waaw. cinq minutes cinq minutes yi amul. Hmm, ay dix minutes la mhm. mais bëre noonu bëre na bu neex xam nga Saliou tamit. Mhm. dafa mun bëre. macha allah Saliou Pouy. maa ngi koy nuyu au boobu wax naa la ne boo ñëwoon làmb. mënoo ne boo nee kii mooy favori. da faral. ngeen koy jaayante. waaw boobu bari nañ champion yi bari nañ macha allah mm-hmm. waaw ndax da am fii Joal lekk li ngay am li ngay am ci ay favori. Mm-hmm. Eh. gaa yi jóge fii ñëw waaw nga ñëw nga ñëw mm-hmm. nga ñëw ñaniñ eh, kii fii Ponto Ousseynou Ponto xam nga ko xam naa ko waaw ku mënoon bëre mook Saliou Saliou Sunte Keita ñoo doon ànd nga ñëw Mbour fekk fi ñoom Jordan ñoom buuba assurance. waaw bari woon nañ sax mais ñooñ ñooñ laa ci gënoon ràññee. Jordan tamit ndaanaan waaw waaw mun na bëri tamit macha allah. ñaata yoon Jordan bëri nañ trois quatre fois. Mhm. Euh, li ma jàpp daal. daan na ma sax maak maak sam benn grand fii ci bayaal bi. Mhm. waaw maak mbañik mu daan mu daan ñu waaw yoon nga ko euh, benn yoon laa ko daan. Mhm. mu daan moo ma njëkk daan daf ma daan. daanaat ma fii Joal mm-hmm. ñu dem Dakar mm-hmm. euh, ñu teewoo ma gagné ko par point mm-hmm. boobu par point ngi soog a xew ñu ñëwaat Joal ma daan ko boobu nag dama ko daan wëlbët gang daan laay njomboor final làmb boobu laay njomboor waaw laay njomboor waaw trois fois bëre nañ drapeau chef de l'état daan ma final. ma daan ko final fii Joal. bëre nañ Ndiédiène. laam boobu sax dama dama ko tasoon. ndax dama ko daan ba pare albit bi jox jox e, bi. nga tas lamb ma jël sama béjjén bi jël dagg fii li waaw naa la mënoon nañ ma rey ci bëre. parce que lamb waaw maa daanoon damaa daan ba xam ne man maa daan. léegi ñu jël vic sama victoire bi jox ko ki ma ma daan. dégg naa tamit mos nga tas lambu njaan. <laughs> waaw mosoon naa déconné foofu. <laughs> maak Jean Paul la woon. Jean Paul xam nga ñun waa Fajut bu ñu tasee du ñu bëre. Jean Paul moo ma ameloon mu may ma. gaa yi ne ñaar ñu mayante dañ leen di baare. ñu ne dañ may baare. est-ce que loolu neex na neexul si xol. yow ñu may la ba pare fay nañ la sa bor ba pare léegi ñu baare la nga perte léegi boo demaatee làmb da ngay fay Jean Paul te làmb bi baare nañ la. nga tas ñu tas ñu ñu tasuma ko sax dama ñëw ci taabul bi pour wax ak ñoom wuñ ma déglu quoi ma jël ma jël seen kaye bi ah. ak seen saaku xaalis bi. <laughs> yobu yobu dof rek xam nga dëkk dëkk nga dem si dëkk jambour def loolu buñ la sotoon dóor la fa dara wala ñu jam la fa dara. loolu risque la ko amé boobu nak tiituma loolu de. boobu lu may tiit kay du loolu. ak fan nga tasaat lamb ndax bari na jour boobu sama papa Pa papa papay Nabu. mo ñew après boobu koku mom lu ma ñaan rek dama ko koy may. mu waxtaan ak yow mu ñew wax ma ah grawul bàyyi leen garaawul. bàyyi leen ak yalla hmm. après jël saak bi. ak kaye bi delloo ko ci làmb bi. fan nga tasaat làmb. ne ma ñibbi Géejëng tamit. Ah. jéem na waa tas làmb ba ba sonn de waaye. <laughs> waaw <laughs> mais mais mais du tas du tas pour pour euh, kii nag pour yara di ko quoi day fekk dañ lay tooñ sa xol jeex waaw doo xam nooy def quoi nga siisu mais du pour xam nga pour def def affaire njubadi quoi waaw day fekk xam nga yaram bi mooy tàng. xam nga làmb rek boo si nekkee ës waaw ngay yaakaar lu nekk ñëw ñu ñëw éliminer la ñoo xam ne euh, du yoon loolu mooy indi loolu quoi mais pas njubadi affaire yooyu quoi waaw. léegi ñu dellu Dakar sa final bu baax Zal Sinthiou Keita daanoon. bon yaakaar naa depuis booba sax bëreetuñu bëreetuñu quoi hmm. waaw ndax ko ni ngay gis noonu kooku sama xarit la. Zahar Sunju Keita sama xarit la baax la sama grand dañuy déggante ku baax la ku baax la mhm. man du ma bëgg a wax sax mhm. suñu suñu ay nettali la rek suñu ah. mais sama xarit la après après euh, mujjantaan yëpp mm. daan ñu woon bëre dañ doon mayante waa parce que dañoo mosoon bokk euh, convocation ñu convoqué ñu équipe nationale ñoo àndoon sax Niger quoi depuis mm-hmm. booba xam nga ñu nekk ay xarit waaw parce que moom suñ tukkee te la dëkk Mbour fale ma dëkk Fajut fii daan xamuma woon si làmb rek lañ doon tase quoi mais dañoo ñëw ñu convoqué ñu ñuy toog di waxtaan mhm. mu ma ma gis ne kii borom baax la mhm. xam naa ne tamit dafa xam ne kii borom baax la après yàlla boole ñu noonu lañ def ba seekatuñu sax affaire u bëre quoi. léegi dañ doon bëre mhm. man daan naa ko daan naa ko Joal fii daan naa ko Dakar. moom nag daanul. ah kay mos na daan na ma fii Joal waaw tànk. affaire yaa ngi wis affaire yaa ngi lëndëm si mais dañuy continuer lamp baa ci saak bi <laughs> léegi moom ndax Momadou Ndiaye dafa jafe te lépp dafa war a leer. Momadou Ndiaye en même temps mu ngi woon ci lutte avec Faraab bi commencé dugg mais loolu ñun lutte Faraab bi dañ koy baay ne wax ci lutte simple ndax moo ñu ñor. <laughs> war nañ wax ci ah. avec frappe ndax man damaa bëgg combat boobu ba tey mënumaa bëre. kan nga gëj a bëre. sama combat ak Zambala ba tey bëriwuma. loolu mu ngi bëgg def si ay trois quatre ans. waaw léegi mu mat cinq ans sax. Hmm. waaw. léegi Mamadou Ndiaye à boobu nga jëloon yan yeneen lamb nga ñu mën a raconter biir dakaar ay lamb yoo xam ne neexoon nañ trop xoolal téléphone bi am na koy woote de. lamb euh, kii euh, Lamine. trophée yi ma jël ci làmb bari na de surtout Dakar waaw bari na trop am na ay temps làmb bu amoon làmb bu mag damay assuré man maa koy jël waaw. mais ban biir Dakar boo xam ne fekk fa ay champion hmm, na de. waaw na de. gi. terrain gi. ñëw naa foofu. Hmm. takk buum fii. Hmm. takk buum fii. takku buum fii takku buum fii. xanaa ay nag lañ tegoon. nag lañ tegoon. léegi nga takku buum yi nga war a teg. so ñuy soog quinze nag. ci année yooyu. boobu jamono boobu làmb neex na. Mhm. ñu annoncé ne quinze nag. waaw jour boobu bu may ñëw si làmb bi. Mhm. dama takk ñaari buum sama loxo yi. ñaari buum sama tànk yi di ko diriger. ñëw si làmb bi ne leen ana nag yi <laughs> ma leen di yóbbu. waaye yàlla indi na leen de. Ah. waaw ñëwoon nañ ba Fajut kay. koo daanoon final. Seeku. Seeku Osum. Seeku Osum waaw Seeku bu mag bi. waaw champion bu mag la. dafa bëri doole la. bilaay. bëri na doole mun na bëre. avancé ku ñan ak ñan nga dajeel ci tirage yi. Hmm. loolu nag yàgg na de. Hmm. Seeku avancé ku. jour boobu man maa daan dun xaaf. Hmm. dun xaaf. boobu bëree gu ñu bëre man maa daan super étoile bu langsaar man maa daan ak tarara waaw ñooñu daal man maa leen daan si làmb boobu. final bi nga am seeku. Mm. waaw ñu bëre bëre bu metti te neex waaw jour boobu war na ma ndomb lu ma trois fois mm. du ma mun a daan. mais war ndomb bobu sax dañ ci ñew parce que Mamadou Ndiaye gars yi dañ doon waxoon ne di ndjay bu dugg ci woon ak ak gàllaaj bobu nonu loxo golo xamal <laughs> xaw ma lan dañu ko nettali man fekkewu ma ko mais Mamadou di ndjay gaay dañ doon sax bo xane war ndomb bi du mun quoi gàllaaj la boko ko ndomb mu no ko daan wala bo jappé tànk. <laughs> gaay yi mo dafa tàmm lool nak ah. waaw hmm. bu ñuy gis nga nga mun benn affaire diko def sax. dañuy naan li gàllaaj la quoi hmm. waaw mais da nga ko mënoon. dama ko mënoon waaw. dama ko mënoon bëgg ko tamit quoi. une deux trois nga joxe man man boo ma jékku woon ba war sampu daan. sama loxo yi. sama fii ba domadan nag doo ma daan boo yëkka boo ma yenu woon ba si kaw sax doo ma daan. waaw loolu dama ko doon entraîner man handicapé la léegi <laughs> <laughs> handicapé la. Eh. dama gaañu dama am genou. waaw loolu la. te xam nga commencé naa di jël âge quoi. léegi ay mool oh, yooyu noonu fekk nga leen fa tamit Paul Maurice fekk nga ko fa. Maurice waaw. bëri ngeen ñaata yoon. Paul bëri nañ quatre fois. Mhm. Euh, daan na ma daan naa ko waaye mosuma ko daan ba bi jox ma jël. ndax lan. xaw ma am na làmb boo xam ne. Hmm. Euh, bu dul quinze nag di vingt nag terrain gaal gi la woon. dama ko daan ba périer ci périer ci kawam ñu jóg arbitre bi jox ko ñi ko fekkee koo laaj hmm. même Paul sax boo demoon ci Paul tey mu ne la Mamadi daf maa daanoon waaye arbitre bi moo ko jox jël. léegi mool mool o jamono moo tee woon Dakar. mool waaw daan naa ko daan na ma sama grand bu baax la nag hmm. waaw. léegi deux fois mu ñëw Adrien Senghor yëngal hmm. boo déggee champion rek koo champion. Wow, Molo. Molo champion la ñoom mool on ñoom tombe seen waaw ay royukaay lañ waaye ay royukaay la léegi ñu dem ba beneen génération bi yëg si nag Sarak Ablaye Ndiaye commencé ñëw si poids lourd yi boo duggee Palmarin ñoom de commencé ñëw boo duggee côté Ndangaan laay njëmboor mu ngi doon bàyyi ñoom Omar Jalang di yegg si ah ñoom jàmme ngee ñan jamono jooju noonu waaw. Dakar nu doon demee. bu dee ngéeñan tase na ak ñaari ñaari jame quoi. am na jame bu mag. kooku mooy jame ngurik. waaw kooku mooy première génération bi quoi. taw rek caterpillar mooy jame bi. kooku mooy deuxième génération bi quoi hmm. waaw. Jarang ndangaan waaw bëri bëri nañ daan na ma daan naa ko. ñoom Mbalka maak yi. waaw. luy ñoom la poids Mbalka bëri ngeen. bëri nañ waaw daan na ma tamit daan naa ko. Hmm. waaw. ñu dem ba deux mille xaw ma France laa bëgg wax ñëw doon ngan di nit indi ngan di doole <laughs> Mamady Ndiaye dama lay laaj lu tax delluwoo France ndax parce que Mamady Ndiaye boobu beneen affaire la. waaw euh, année boobu nag neexoon na neexoon na trop si man ak sama supporters yi mhm. waaw boo seetee boo seetee làmb yu bëri sax daanu ma woon sax ngemb comme. Mm, ay indi galaaj yu bëri ay galaaj yu bëri. doole nga doon indi ak mën bëre. waaw dama sel rek laa doon jël ak Evian benn butéelu Evian rek dem jël làmb ji ñëwaat. dafa mel ni am na làmb boo xam ne daanaka da ngaa yëndu ñëpp premier tour ba final ñu ngi ci yënduwul. bëriwul 5 millions la woon. 4 millions 4 millions kon waaw drapeau Pape Diouf la woon. Demba waaw. ñoom ñëpp laa yenu kay. basi kan ak kan ak kan. premier mbër bi ma njëkk a yenu kan la sax waa Joal la de. Hmm. est-ce que du Moussa Mbaye. waaw saa ci Mbaye. waaw deuxième bi Caaka Faye. waaw ma yenu ba kaw. Mhm. troisième bi Jamme. Jamme ñaning wala. Jamme Jamme bii Ngéeñan. waaw. Caterpillar waaw. quatrième bi Ngel John. cinquième bi mooy demi-finale bi kooku rek laa yéenul kooku moom dama ko dama ko naxtaan ba daan ko. la moom xaw ko nag mbër boobu xaw ma turam quoi. mais booy bu mun bëre nag. depuis booba sax laa ko gisatul mu mu bëre quoi mais mbër bu muus. bariwul gabari mais dafa dafa muus. parce que jël naa tànk bi ba yéenu ko. mais après dafa rëccaat. après dama ko mujjee nax rek daan ko. après tase kii final second. bala bugg waaw. ma yéenuwaat ko dóor ko si suuf. ay caaka fay ak seen diisaay ay seconde ak nu mu tolloon nga yéenu di xaañ. boobu nag dama am doole ba xam ne dama am doole. Mhm. billaay boobu am naa doole. boobu kay buum rek. foofu beneen làmb. làmb bi ci bi ci amaat semaine la def waa semaine. Mhm. dama jël làmb 4 euh, millions bi. Mhm. semaine bi si topp. mu amaat beneen làmb. après caaka fay laa tasel final encore. waaw yéenuwaat waaw année boobu année boobu ñaari yoon ñetti yoon laa laa la laa daanu hmm. waaw. li des yëpp da nga koo jël. li des yëpp làmb yi ma bëre yëpp ko jël waaw année boobu usine doole. Hmm. bu rof. moo daan. caaka hmm. fay rëg-rëg muy ñetti jéeli yooyu. parce que instant boobu la rek rek commencé na boobu rek rek mu ngi si àll bi di bëri ay tànk ak yooyu noonu. voilà jéggi rek dugg si Dakar. waaw bi saison bi di jeex fee bi si la dugg si. mu ñëw ñu per ñu mu daan ma. li commencé rek rek daan na ma di moo commencé euh, coow li kay. daan na ma rek. télé yëpp télé yu amoon Dakar yëpp mu dem. ci seen plateau yi yóbbu drapeau bi man maa daan Mamady Ndiaye man maa daan Mamady <laughs> Ah, parce que tamit instant bobu daan di Ndiaye ndam la won waaw ko xamne day japp di yenu di xagn rek. après année jall mhm. euh année bi si top ngeen ñëwaat. ñu ñëwaat. mom mu bay tank yi bay àll bi ñëw Dakar. waaw mu ñëw Dakar premier lamb bi nak mhm. euh, si année bobu lañ tassé Grand Yoff.